ginnaaw nuyoo bi ñu dikk ak yéen ci revue de presse yi nga xam ne tey jii belleeku na ci Aladji Malick TV ca njeextalub yëglekaay Ada Fass mi nga xam ne xasante na ak ki nga xam ne mooy Sarko mooy jeexal li nga xam ne mooy revue de presse yi record yëglekaay record yëglekaay saajo Mané mooy ñëw di yëkkati ay weñ daanaka mel ni ku jóge din ya Sadio Mané ci biir record yéenekaay ngeen gis ko mu dooraat li nga xam ni mooy yaakaar yaakaar di bàyyeeko ci moom yaakaar sénégalais yëpp di ko bàyyi xel ak beneen boo xam ne mi ngi ci yëglekaay bi bi nga xam ne ci diggante daanaka Lewandowski ak ki nga xam ni mooy Karim Moustapha Benzema Barça ay supporter am ak Real Madrid nammante woon nan ay nam min yu loolee danañ ti ñëw bu baax a baax léegi léegi Sadio Mané moom it mi ngi ci biir yëgle dana football ci digganteem ak Fran Paris bu fekkente ni ànd naag dogalu borom bi ndax mi moom mii di gone gi wér na pilik ba tàggatu yi commencé na ko kon daanaka mat match yooyee des na loo xam ne gone gi dana mën a nekk ci forme boo xam ne bu mucc ayib la waaye ki nga xam ne mooy entraîneur am a ci record yëglekaay bi ñu génn dafa mel ni kuy nëbbatu Sadio Mané ndax man na rivaliser ak ki nga xam ne mooy Messi ak Mbappé ci wàllu football fi mu toll nii loola gone gi mën na ko am na talent ba ki koy laaj mooy stade di kaay ndax gone Casamance gi loolee du lenn ci moom bu fekkente ni forme bi am na gars yi continué ñaan yi Barça ngi ci suufu yëglekaay beneen yëglekaay di wiiw sport nga xam ni wiiw na kii di équipe nationale bu Sénégal wiiw tamit li nga xam ni mooy Sénégal ak championnat am ndax loolee solo bu baax a baax Euh, football euh, xam xamle na ni euh, Sadio Mané ñu ngi ko formé ci réewum Sénégal kon footballu Sénégal daanaka ma ngay coppati di dox cinq sur cinq loole mooy yëglekaay bi li nga xam ne andi na ko ak ki nga xam ne moo nekk Sarko mi nga xam ne jàpp na ni bu jàppee ki nga xam ne moo nekk Ada Fass da koy dóor daan ko Ada moom daal di jàpp ni moom moomee dana ko tracé bu ko paree daal di koy tëdd ci li nga xam ne mooy vente ba maanaam nëkk ko ci biir suuf si loolee tamit di ay xas yoo xam ne kenn kum ci mën di doon teg na ko ci taal taabal ji nañu yónni yaat